Dakar yaa ngi Feeling Dakar. nga sargal waa bi seen doomu moo xewle donc ñun lépp lu ñuy def ci Medina yow yaa tax yow yaay sunu exemple yaa tax ñuy way yaa tax ñu gëm micro yaa tax ñu gëm liggéey yaa tax ñu gëm suñu bopp ñun nag ñu lay tàllal loxo nga ñaanal ñu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf El Hadj vraiment yow fierté Médina. voilà ah. voilà gars yi taxaw leen noonu El Hadj lu xew. lu xew lu xew lu xew. waaw papa li xew mooy 24 décembre. ah ah. wala sargal waa ñu suñu bopp. ñun nag ñu lay tàllal loxo. nga ñaanal ñu. jógee ci suuf di wax di monter fekk naa la Douta Seck ngay way boobu guitare rek seen ak ay percussion fekk naa la ngay def a cappella vraiment dafa jóge ci suuf di monter lii nga xam ne nag moo la topp ci mbooloo euh, Sénégal yëpp Médina nga soqe yëpp dañuy wax ñu ñëw muy si xale bi nga xam ne espoir la histoire politique di suñu rak ñu bokk Médina te waa Médina kenn du leen waxal jërëjëf jërëjëf jërëjëf El Hadj vraiment yow fierté Médina dangay jógee ci suuf di waa di monté fekk naa la Douta Seck ngay way boobu guitare fekk see si ak ay percussion naa la ngay def acapella vraiment danga jóge ci suuf di monté